ñu ngi leen di nuyu bu baax sëriñ Abdou Samad ñu ngi lay ziar tey jii nag naruma woon a jël kàddu dañ koo wax sañu ñu ko bañ ndax jataay bi jataayu sant la bu mbégte waaye nag e, ngeen may ma ma am mulaaxasa bu ma ci def mooy jataay bi kiimaan yu bëree bari desee feeñ yoo xam ne ginnaaw bu nuyoo sëriñ bi ba noppi dañ koy sant waaye mu jàngalaat ñu ko ñun te bu ma ko leeralee day mel ni ñëpp la ko jàngal lu bari ci lu sëñ Maamoor indi nag ci ay nuyoo ak i cant duma ci ñëwaat euh, waaye ma jiital ne la bay mbay dem mii nga xam ne moo yor école ba ak magam sëñ Mbàkke dem ak soxna ab satu yaay Galas Touré mi ñëwoon ci yow ñoom ñett ñoo bokk ndey ak baay kii magam tudde na sama yaay doom bay Maamoor mii way juróom wu jigéen di soxna ummi moom lañ tuddee moom la sëñ ma dem tudde way juru soxna sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ si soxna ummi bi mu ko tuddee ba noppi taaw Baye Mamour mii mu tuddewaat ko yaayi kii ba pare sama mag jur ko léegi moom mii tamit ki topp ci kooku mu tudde ko sama yaay ma am nag seetlu bu ma def ginnaaw buñ sante Serigne Sambo sant sëñ Moustapha Diané mu am boole gu gu sëñ bi def toujours ci ab jataay te desu ci bàyyi xel ndax kat ñun jataay bii ci baatin lañ ci bokk waaye bokkuñu ci ndax sama nijaay ji ñëw na ci yow ba dem te yëguñu ko waaye ci sag defar yow bi nga ñuy woo di ñu wax ni ñun dañ cee war a ñëw yàlla xam na ni maa moom ñoo war a daje bokk oto jëm si Touba nekk Dakar maanaam bi kee coupé ma woo ko dani ma damaa nekk ci oto ma noppee woo la bi muy noppi la yëg ci man ñu war a ànd nag jëm si Touba mu mel ni yaa ñu boole pour ñu war a waxtaan ci yow bi ñëwee ba yëg fii dama tudd bay Mamor waaye si Moussa Diané mais bu la leeraloon jële naa ci moom kàddu yoo xam ne ñëwoon jël si ko ci njariñ ak ci soññ bu ma soññi jaraloon na ma ko beneen bi mooy tey jii lañ doon def journée mondiale du rein man ma doon ko jiite sëñ Muntaxa ma nga fa yebaloon sëñ làmp ki mu tudde sëñ Cheikh Ibra maa ngi nii moom mi ñoo bokkoon ca jataay ba waaye dama ni leen du ma wax sëñ bi mukk li ma nekk nañ ma dimbali ba mu yem une heure deux heures bu deux heures ma gaaw dem kër sëñ Abdou Samad nga xam ni yenn gan ña muy ñoom ñoom ñoom jiili ñang ñoom sëñ xaali jaxateeg ñoom ñëpp falaa leen bàyyi and ak sëñ Maamoor ngir bala ngaa ñoo laajte fekk ñun ñu ñu yëg si foofa nag li ñu fi jàngal te ma naan ab mulaaxasa la mooy yaa ngi boolewaat li bokk ci façon boo xam ne yow doo ko wax waaye da nga koy jëf ndax Baye Mbaye mii xamul woon ni dinañ fi daje e, xamul woon ni dina fi dajeeg Baye Mamor te moo na bu ñu fi dajee ñoom day mel ni doonatuñ ci dara kon kon yow li fi nekk lépp sa alal la sëñ Cheikh Anta mii sama mag bu jigéen bu bokk ak man ndey ak baay ginnaaw bu way juróom làq ko mooy léppam muy ndey jaxate mu am ak Baye Mamour mii doom ñu tudde ko yaayam bu ko defee loolu dafa dafa rëy ci man ba li ma gënaloon mooy bañ a wax ndax xoolal niñ bokkee ñoon ak liñ bokk ñu war a ñëw ci yow ba dem ñu mënan koo bañ a yëg nga defaraat ko ba mel ni ñu na il faut ñu wax ko ndax nit dangay roy ci nit ki lu baax lii mooy defar jataay biñ mujj am nag maa moom bu tay jàllee mooy jag saaw ci Sidi Ahmed muy sag bi ngay wax sëriñ bi day sagal yoon wi ba sagal ko foo xam ni ñiiñ dëkkal sax mën nañoo bañ a xam dayoo ba ndax fanaan kasu rajab ba bët set moom mu jiitu ñu jag saaw leetaram maa ko indi woon man te dama woo sëñ Sidi Ahmed ñaan ko ngànt pour bañ a dem ndax gan ñi ma nekkal bi ma demee ba ci ngoon Cheikh Gaawaan woo ma ni ma sëñ Moustapha Abdou nee na mënuñu koo ñàkka demal ma a jóg ci tàkkusaan gi dem fekk ko fa mu toog wallaahi damaa yéemu ndax dooni amul woon gan dooni sonnul dooni fatigewul wul dooni am am na jotam waaye mu toog may leen temps ba jataay ba jeex ànd ko njabootu sëñ Touba yëpp loola lépp nag euh, moom sëriñ Touba la ko defal li may faral di wax nag sëriñ boo gis ci ak kër lay nekk waaye kilifa goo gis ci ak kër lay nekk waaye njaboot gi nan lañ lay jàngate ndax kaay sopp ma kenn du ko wax nit mën ngaa jur nit sax te du la sopp waaye ñi ñii la sopp ba gëmewuñ la ba loo wax ñu mën koo def mbàkke na nga xam ne loolu dañ lay ñaanal cat bañ ciy jiitu waaye ñun ñu la sopp lañ te yàlla rek tax man dama la daan wax ba ma la miinagul ne la ba ma dalee roy ci yow booba yàgg na ndax man dama gëm ne lépp luy am ci àdduna du yàlla mooy ñëw def ko sëñ bi junj na ko sëñ Moussa Diané bi mu ko junjee damaa ree yàlla lu am lu nekk nit mooy taxaw taxawaayu suñ boroom def ko muy ndimbal muy sag muy sutura muy faj nit waaye moom du ñëw waaye bu ñëpp bankee seen loxo ana ñoon ñoo koy def kon su dee fardu kifaaya la yow yóbbaale nga ci ñu bari bu dee fardu ay ni ñun ñëpp fekk nañ la ci kon nag man wax dëgg yàlla euh, du ma xam sax lu may wax ci ci jataay bi lu dul bég ak di gën a dénkaat sama bopp sëriñ bii ndax man kat Baye Mamor xam nga sama jikko du may daanu te it ku amul itte ci man mën naa faa bañ a dem waaye li may nangamti ko ci moom wallaahi lancim ak koor gi nga xam ne moom lañ jëm maanaam su ma ko doon nangamti ko ci sëriñ sépp kon dootuma tëdd nelaw kon man bég naa ci moom te maa ngi ñaan mu yàgg len nit maa ngi koy def maa ngi koy ñaanal cat seexlu ko ndax bu dee fu ne ñu tudd la fa amaana ñi lay sant sax cant gi ëpp te mënee su laa bañ a sant ndax ku def lu baax ñu sant ko gis nga mbokk yii dajaloo ba xalaat ni na ñëw ci yow fi mu ne ku ñu woowoon ci ñun rek ñu ne ko dem leen ci Sëñ Abdou Samad te moo na day ñoom bañ koy jàpp ñun yëguñu ko waaw loolu nag am njàngat la kon kàddu yi bu fekkee dëng na ñun ñi ngi koy jéggalu waaye ñun amuñu sago ci sab jataay nuyu sama bokk yi ko jaar lay sëñ Mamor jaar sëñ Bay dem ci délégation bi ñëpp rafetlu kàddu yi kàddu yi suñ maam Mor kàddu yi suñ Moussa naa seen jikko rek ngeen ma jox waaye noonu noonu ñàkk nañ solo lool waaye nag ñu def ko aw sas rek def ko laxasaay rek di lool nag ci jataay bi ndax tànk yi ngeen indi ndax tuut tànk moom dafa am yëg-yëg buñ ci am wala fi dañuy wax ne gone tuddut gone ku ne ngi ci <laughs> tuddut gone ku ne ngi ci ndax koo gis mu doon mag amub cër mas doon gone kon nag gone yit xamoo buñ doonee mag lu ñuy doon <laughs> ba tax na bu ngeen tànnee gone yi ànd ak ñoom indi leen seenub sorti mooy seet si njabootug sëñ bi waxtaan ak ñoom ci diine lislaam waxtaan ak ñoom ci ak taalibe xamal leen luy sëñ bi ak luy seen ndono loolu dafa am solo lool te gone band la loo ci xas enregistré rek du dañ mukk moo tax lu mat a bàyyi xel la <coughs> mémoire sun borom la boo xam ne dara nekk gu ci da ko defar ba mu baax bàyyee ko indi ko jamono boo ko defee nag doomu aadama wuutu gim wutu boromam ci suuf nekk xalifaam dafa tax suñu borom jàppandalal jàppandalal na ko suuf si ak ndox mi ak jaww ji oxygène bi ak garab yi ak li ci géej gi lépp lu manqué nag ci moom la manqué loolu nag dafa tax ni ñu war a tàggate gone ba bu màggee yooyu yëpp du ko yàq ci ngoone rek lañ ko mëne moo tax gone mooy lépp maa ngi koy nettali bis muy lu naqari dégg dañuy wax ne sëriñ bi daa am bis moo wax ne man de damaa demoon àjjana ndax suñ borom damaa jox ceeb bi yëpp àjjana yëpp may wër nag ba àgg ci jann àjjana di bëgg dugg fekk fi mel ni malaayika mu ne fii moom doo fi mën a dugg mu ne ko ah, sun borom jox ma àjjana yëpp. nga ne ma du ma fi dugg loolu la ko waral mu ne xoolal liñ bind ci kaw nee na ma xool ñu bind ci kaw laa yadxulu fii illaa mufarrihu sibyaan àjjana jii kat kenn du fi tàbbi ku dul kuy bëggal gone <laughs> nee na malaayika ma laaj ko wax ko jibril moo ko suñu borom mu ne ko maa ko may te lii maa ko bind te lu ma xas bind dong na kon nee ko na na dem bëggal gone ndax mu dañ ndax noonu yàlla yi ma ko booleel moo tax amut jotug bégal leen bokkut ci ay ay ay ab liggéeyam waaye na ko def yaa ne bis boobu siñ bi bu dee ci guddi ga la fa demoon daa xëy yendoo bégal ay gone nga xam ne mel na mag gisu ko kero waaye daa ubbi di teral ay gone ba ngoon loolu mu defal leen ko ba ngoon rek mu jeex xam ne bu doon bu doon ab kota daal décoté nañ ko <laughs> loolu dama ko mos a nettali sëñ saar yi mu def ko xaal lool ma ne ko daa mel loola ngay da ngaa sëñ bi foofa waaw ah, li mu waroon def ci gone nga xam ne moo ko manqué woon yow dalaa féetale loola nga xam ne bëggal gone rek nga tax loolu nag mooy lii moo tax pas-pas boobu lañ ci am jàpp ne lu ñu leen defal sëñ bi lañ ko defal dañ ciy dabo ngërëmul sëñ bi ak bànneexam kon nag maa ngi leen di jox xasida goo xam ne damaa bëgg ngeen def ko muy seenu bàkk ñoom ñu fexe di leen ko tàmmal boo demee yeneen gone yi ci yeneen école yi am na lu ñuy jàng def ko seenu bàkk ñoom waaw ñoom ñii nag nañ jël ala man ya ni ci sëñ bi tagg yonent bi jàpp naa ne buñ demoon ba bis ci penc it kenn du jot tagg yonent bi nettali ko lu lu neexe nii wala lu toll nii waaw kon nag nañ leen ko tàmmal luñ gën a màgg di ko mokkal bu ko seen xel attanut it ñuy fab fi mu gën a neexe rek di di leen ko di leen ko di leen ko tàmmal waaw waaw boo ko defee ñu di ko def daaj bu neex mu seenu bakk <laughs> leen ñaanal nag ñu doon gone yoo xam ne bu ñu màggee dañuy doon jiwu yoonu murit di doon jiwu lislaam di doon boroom xam-xam yu mag tey jaamukati yàlla tey liggéeykati sëñ Tuubaa boo ko defee nag école bi moom école bu barkeelu la ñaan naa sax bis ma ñëw fa seet si leen incha allah te itam am na pas-pas yu ma ci am ak yéene après nag danaa danaa dana danaa yónnee ci yéen la ca des màgg ngi waaye lii moom day mel ne. yoon wi ba war a bàyyi xel ndax jëfi mag la tey it barkeel na lool te barkeelu la waaw barkeel na barkeel na lool sëñ ma dem moom doy na sëkk lii sëñ ma Mor doon wax léegi day wax yi boole waaye mënta lim yi boole yëpp ndax moom sama jarbaat la wëlbatiku sëñ ma dem ci boppam ni mu demee ak sëñ Bàkki Kanni mi jur sama woyu jur wu jigéen <laughs> benn lañ <laughs> loola sax moom bi muy lim limaaliwu ko <laughs> ñoom benn lañ ñoom ñoom waaw mm, mm, mm. ñoo bokk lépp waaw waaw mu ngoog benn lañ benn lañ lool waaw xam naa ne sa sa baay boobee mu daa ànd ak yow di ñëw sëñ son bu li muy bari bari xam-xam ba doonu mufti wóor ma la ci la ko sëñ son bi laaj du doon ci xam-xam waaye ci sëñ bi la koy laaj la gën a soxla mooy lu mu daa dégg sëñ bi di ko laaj lu mu ci xamoon nag lu mu ko daa wax yooyu lay la du doyal yooyu lay jël ci moom xam naa sabaa